asalaamaaleykum mbokk yi amatu nañu mbégte janoo génn ci digg xibaar yi ba bëccëg yi ca kalamay wolof maa janoo tëjanoo ci Kajoor Cissé maa ngi lay nuyu maa ngi lay fay Suzanne di nuyu mbokk yi ñuy teewlu. ci ñu jukki bokk na ci tasum euh, assemblée euh, nationale bi nga xam ne daanaka mbébét la ci euh, njiitu réew mi te soo moyul rek mënees nañ ci àgg ca weeru septembre moom njiitu réew mi sax daan nay jébbal ab bataaxal conseil constitutionnel ngi mu daal di koy xelal ci nees mën a def ba tabbi ci lu ni mel donte sax nag lii di charte ndey réew mi mën na ko ko may. yi waaye mu mel ni rek bés bu ñu ko euh, amalee itam dina am euh, nu muy soppi ci doxalinu euh, réew mi ñu dellu siwaat euh, ci coow li ñenn ñi duppee cap euh, protocole cap manuel euh, ba nga xam ne journal bi di Jeune Afrique moom daf ci dellu siwaat di wax ci déggoo bi nga xam ne am na ci diggante njiitu réew ma woon di Macky Sall ak kii di Ousmane Sonko jamono yi ñu koy teg loxo journal panafricain bi nag eh, di eh, xamle ne daanaka diggante bi ku bokk ci société civile bi moom moo ci doxoon eh, dox njëkk ngir ki nga xam ne nag mooy njiitu réew mi di Macky Sall daal di bàyyi ñoom Sonko ak kii di Diomaye ngir rek su bis bu wane gannaaw réew mi mu bàyyi ko ci dal. ñu wax itam ci jafe-jafe yi nga xam ne euh, këru euh, tasum xibaar yi ñu ngi koy euh, jànkonteel jamono yi lu ci ëpp ñeel nag wàllu seen koom-koom mu mel ni rek kuréel gi di CAP mu dajale ay euh, association yi yi yëngu ci wàllu tasum xibaar ñoom nag mbir mi ëlëm na seen xel ba ñu daal di sàkku nag ci ñi nga xam ne jamono ji ñoom ñoo ŋànk réew mi ngir ñu amal waxtaan su ko defee ñu mën a xam fan la ñuy euh, daanaka jëm ci li nga xam ne moom mooy jafe-jafe yi ñuy euh, jànkonteel mbokk yi li moom mooy ponk yi nar a gën a fës bu ngeen taaxirloo tuuti ñu ñoo yéen ci àttal gi jaajëfal leen bu baax a baax ci teelu bi ànd beeg 7TV addu ci wàllum politique fukk ak ñeenteel législature bi ci pencum ndawi réew mi ba mayul nag daañu tas tasar assemblée nationale loolee nag mën na naka def fii ak weeru sàttumbar bi di ñëw wa donte nag lii di charte ndawi réew mi mënees na ko may boobu lépp sañ-sañ waaye bis bu buñ ci àggee mën a am lu muy soppi ci doxalinu réew mi ñu ànd ceeg Amadou Kanté ay bés a ngi nii mu am coow lu jaar ci diggante pencum ndaw réew mi ak Ousmane Sonko mi di ilimaanu jëwri nii ñeel mbirum déclaration de politique générale naam mu ngi mel ni député yaa ngi def ay jéego ngir mën a soppi règlement intérieur mi waral coow li waaye coow loolee mën naa jeex ci dissolution wu assemblée nationale ni ko Emmanuel Macron defee ca France njiitu réew mu Sénégal Bassirou Diomaye fay mën naa moom it dissoudre assemblée nationale gannaaw ñaari at muy am sañ-sañ boobee li ko dalee weeru septembre ci atum 2024 ndeyu charte réew mi moo ko jox sañ-sañ boobee ci article 87 bi nga xam ne ni mën na faa jaaree ngir mën koo di suudul ci ab décret gannaaw bi nga xam ne ni laaj na xalaatu ilimaanu jëwrin nii ak njiital assemblée nationale te ci décret boobee nag la ñu war a waxaat ban bés moom la ñu war a amal jongante ci topp jongante yooyee ñu war ko fixé juróom benn fukki fan gën koo gàtt gën koo yàgg juróom ñeent fukki bi publier na boobu la décret waaye bu ñu waree topp yooyu la délai mën nañoo jàpp ni sénégalais yi mën nañoo dem wote ci weeru décembre te diggante bés bu ñuy dem ci bañ gàcce ak résultat yi bés bu muy génn mën nañoo dem ba atum deux mille vingt cinq mu di processus bu gudd bi nga xam ne ni mën naa jur ay jafe-jafe ci vote loi de finance bu at mi te loi de finance initiale boobee moo war a déterminer budget bi ak anam yi nga xam ne ni moom lañ koy jëfandikoo bu dee ndeg seen mandat ba keroog ñuy fal ñeneen ñu bees waaye ñooñu le duñu mën a réunir ba di voté loolu di woon rek ni di solution assemblée nationale bi am na lu bëri li nga xam ne ni mën na koo gàllankoor ci nu institution yi du doxe ci mim réew addu ci beneen ponk mu nga xam ne waxoon na leen ko sànq Jeune Afrique daal nay deqal ak déggoo wu ñu duppee protocole bu Cap Manuel diggante ñu turéemu woon Macky Sall ak Ousmane Sonko ak Bassirou Diomaye Faye mi bi fete woon ginnaaw jàpp ne daal ay waxtaan amoon na ci suuf ba tax nag ñu daal leen di génne loolee nag nañ ko ca dox ay tànk bokk na ci om d'affaires malien bi di Ousmane Yara bu ñu sukkandikoo ci journal bi journal bi nag daanaka dafa dal di euh, faram-fàccee euh, jéego yoo xamante ne yi euh, def nañ ko ci ba ñuy dox njëkk ci ñaari pàcc yooyu muy njiitu réew ma woon di ki Sall ak kii di Ousmane Sonko ak ki ñu ñoom nee nañu nag Macky Sall li waraloon rek mu nangu déggoo ba ñu loon sàkku mooy fexe rek ba bis bu wane gannaaw réew mi mu bàyyi ko ci daal ñu ànd ak jëmm mbaay Cheikh Yérim Seck moonte laata ñuy génne Ousmane Sonko ak Bassirou Diomaye prison la waxoon ni ay waxtaan yu xóot a ngi dox si diggante nguur gi ak ñaari opposant yi la te ñi ñu yaakaar ni sax ñoo jiite mbir mi du ñooñu journaliste bi tuddoon turu doomu Mali bi di Ousmane Yara ne woon moom moo tàmbali yooyu la waxtaan. ñi waxtaan dëgg dëgg dëgg dëgg dëgg ba ñu toll fii du ñooñu am na benn malien bu tudd Ousmane Yara. Ousmane Yara. da dafa dem toog ak Sonko. waxtaan ak moom waxtaanu xóot Ousmane Yara boobu moo doxoon diggante Macky Sall ak Abdoulaye Wade ci protocole bi ñuy woowee protocole Conakry. tey jii Jeune Afrique dëggal na kàddu Cheikh Yérim Seck si ab article bu ñu bind bile magazine di dikkaat si waxtaan yooyee ni mu tàmbali jotaay ba nga xam ne foofee la pexe bi jibee sañu naataangoo yi nee nañu si ab reer bu njiitu réew mi Macky Sall doon amal sa këram nga nekk sa Mermoz la yëkkati ay kàddu wax yéene gi mu am. bàyyi Sénégal gu am jàmm ak dal bëgg-bëggam mu nekkoon fay coow li yëngaloon réew mi sa jotaay googee ñaari xaritam di doomi Mali ñoo nga fa woon bu ñu sukkandikoo ci Jeune Afrique muy colonel Guichema ak Akayli mi jiite conseil d'administration bu agence malienne de développement des biocarburants ak homme d'affaires malien bi di Ousmane Yara nee nañ sax Ousmane Yara moomee moom moo soññ njiitu réew ma woon di Macky Sall ngir mu waxtaan ak kii di Ousmane sunko taxaw ne fas yéene na dox si tànki jàmm moom moomee di Ousmane Yara nee nañ nag sa njëlbeen ba njiitu réew ma woon di Macky Sall àndal woon si lu ni mel. Marème fay sàll moo si jàpp ba mu mujjee nangu yëfi ndaje gi Ousmane Yara njëkk amal ak Ousmane Sonko yombul woon ndax ba mu ko njëkkee jéem sottiwul si Abbas Fall la ko jaaralee Abbas Fall mi jege lool Ousmane Sonko ngir Sonko nangul ko boobule visite nee nañ seen waxtaan bu njëkk neexul sa ndoxteel ba. ñoom ñaar dong doon waxtaan waaye mujjanteel ga ñeneen ñëw nañu bokk sa yooyu lay jotaay mu di Abbas Fall Biram Souleye Diop di Diba ak kii di Gisma ak Akayli mi doon jaabante diggante ba ma ko ak Ndakaaru Ousmane Sonko nag tegal leen ay conditions bokk na si la mu doon sàkku mooy ñu bàyyi nañu jàppoon si doxu ñaxtu yi doon am fii si miim réew bàyyi it kii di ba Bassirou Diomaye Faye Jeune Afrique nee na si la ko njiitu réew ma woon di Macky Sall proposé ne ko dinañu wote ab loi d'amnistie fii si réewu Sénégal dina defit lépp ba ñu toxal datu élection présidentielle yi li si topp nag umpul kenn jërëjëf jëmm mbay ci leeral gi dañuy àddu ci leneen kuréel gi ëmb nag eh, ñi jiite këru taskatu xibaar yi sàkku nañ ci kilifa yi daal ñu xool naka lañuy def ba jafe-jafe yi nga xam ne ñu ngi koy jànkoonteel mën a deltu ginnaaw. jamono ji coow li di jiib nag daanaka am na yenn ci ay eh, bërëbu liggéeykaay yoo xam ne ñu ngi waaja a tëj ñenn ñi jot nañu sax faf eh, tëj ba tax na CAP daal di sàkku ngir ñu daal di amal waxtaan ci diggante ñi yëngu ci wàll wàllu ak gouvernement bi ngir ñu mën ko ci ab bataaxal la coordination des associations de presse daal di fësale njàkkare gi mu am ci jafe-jafe yi nga xam ni secteur des médias mu ngi koy jànkoonteel file mu di situation boo xam ne mu ngi tukkee ci pression ñu koy teg entreprise de presse yi ba tax ay ndaw di ci ñàkk seen i xëy ay organes de presse ñu ngi commencé di faillite ay techniciens ay journalistes ak i personnel d'appui di woy di dem chômage CAP di ci joxe sax exemple quotidien stade ak suñu làmb nga xam ni jamono ji dañu leen suspendre kuréel gi di xam ne ni bu ñu moyul yeneen organe de presse daañ ci topp loolee tax ba coordination des associations de presse di ñaawlu doxalinu nguur gi nga xam ni mu ngi woy di jël ay dogal ngir rey lépp luy média privé fii ci Sénégal acteur des médias yi di ñaawlu itam taxawaayu nguur gi nga xam ni daanaka may ñu leen benn borox ndoll ngir ñu mën a amal ay waxtaan ngir indi ay saafara ci jafe-jafe yi kuréel gii di CAP jàpp ni nekkul ni pression yi nga xam ni ñu ngi koy teg organe de presse yi ak i contrôle fiscal ay mise en demeure l'État mën a defaraatee secteur des médias ba tax na kuréel gii di kàpp di ci woo seede waa réew meeg bitim réew ci jee ji nga xam ni lii mën na koo jur su fekkee nii indiwuñ ci benn saafara. njiital 3M universel di Maimouna Ndour Faye indi na ay leeral ci kàddu yi nga xam ne ni juboon na ñeel télévision bu 7TV jàpp ne daal eh, fii ak fan daañu ko teg loxo ginna ak koppar guñ ne daal da ko yoreel ñi nga xam ne rek ñoom la daal di jëflanteloon ci wàll wi waaye moom nag indi nay leeral wedd yi fii ba mu set. lay dëgg mooy amul benn ndogal bu ko ci eh, këru eh, yoon buy wax ne dañu war a tëj li nga xam ne moom mooy télé bi waaye itam lépp loo xamante ne lii moom moo am mooy. ab daan boo xam ne ten nañ ko muy ay koppar yoo xam ne moom moo dox ci digganteem ak LCS ñu ànd ceeg Matar mun a Ndour Faye nekk présidente directrice générale groupe 3M universel génn na ci silence bu mu nekkoon ngir indi ay leeral ci coow li nga xam ne moo soxal télévision bu 7TV nga xam ne ay fan a ngi nii ñu ngi koy waxtaanee ci biir réseau sociaux yi mu jël kàddu nag ci émission 7TV soir ngir dalal xelu sénégalais ak ñi nga xam ne ñoo di ay partenaires am li moo xam ne nag moo di amul benn menace boo xam ne rek mu ngi plané ci kaw 7TV. ah 7TV n'est pas menacée de disparition. 7TV <laughs> mu ngi fi ñu ngi def suñu liggéey yéen da ngeen am problème yéen employé. non jusque la non. est-ce que vous avez des arriérés de salaire. jusque là non. cette TV n'est pas menacée cette TV ne disparaîtra pas. amul itam benn ndogal boo xam ni dafa jóge ci yoon bu wax ni dañoo war a saisir chaine de télévision bi mu nekk lu wute lool ak li nga xam ni nit ñaa ngi koy wax. personne ne peut mettre la main. Mm -hmm. sur une décision de justice boo xam ne euh, dañ ne euh, cette TV euh, va être saisie amul et d'ailleurs ban média sérieux nga gis mu bind ci. mbaa mu wax ci. c'est plus ci réseaux sociaux yi. loolu rek ça ak certains chroniqueurs. voilà voilà loolu mm-hmm. euh, pousser les gens à s'interroger. Mm-hmm. wante nag PDG bu groupe 3M Université la mu ngi firndeel condamnation aux dépens ci dossier bi nga xam ni moo dox ci digganteem ak ñi nga xam ni ñoo moom télévision LCS. parce que mm-hmm. injonction de payer bu ñu def moom la justice wax ne ma ma ne nañu casser procédure boobu parce qu'elle est caduque parce qu'il y a eu des évolutions loolu kese la justice wax ne. euh, ma requête est irrecevable et que je suis con condamné au dépens. Mhm. ça veut dire que non seulement war naa fay mhm. mais man war naa euh, euh, prendre en charge les frais d'avocat et autres et mhm. de procédure. loolu la de y a rien d'autre. bu ñu sukkandikoo ci MNF nit koo xam ni dafa jóg ngir jaxase xelu askan wi moom moo yëkkati débat bi ci loolu moom PDG bi ne na ni porté na plainte pour diffamation ak diffusion de fausses nouvelles contre kooku nga xam ni ñu ngi koy woowee Cheikh Bara fréquence rajo mu indi jafe-jafe yi seen diggante moo tax nag bu ñu sukkandikoo ci kàdduk Maimouna Ndour Faye te 7TV daanaka waa LCS nag ñoom dañoo joxul cër benn yoon la nga xam ne waxoon nañ ko ca njëlbeen. bokk na ci la ñu waxante woon mooy jox ko télé ak rajo mu mel ni rek télé bi rek la jot rajo bi jot nañ ko jaay keneen ñu déglu ay leeralam. ma gis ne la télévision LCS dafa nekkoo dafa tombe en des désuétude c'était difficile ma tenté approche. ñu nangu ma waxante ak ñoom pour ñu jaay ma télévision bi ma jël cabinet fiduciaire cabinet fiduciaire bi mu ne ah télévision bii kat lenn li ci am euh, valeur moom mooy licence rajo ak télé bi ñu waxaale selon un échéancier man ma ne télé bi yëpp laa jënd matériel yenn matériel yi jël naa ko ma am retard ci samay échéance de paiement ñoom ñu attaqué ma en justice euh, defal ma injonction de payer en ju en juillet 2018 c'est-à-dire j'ai commencé au mois de mars ñu attaqué ma en justice. quelques mois après. voilà après ñu waxtaan négocier ma ne leen nañ ma may temps ñu may ma temps ma yëkkatiwaat beneen montant joxaat leen. Mhm. ci biir loolu j'apprends que pendant que ñoom ñu ngi may poursuivre pour un montant bu ma leen desel fréquence rajo bi nga xam ne man naa ko moom. Mhm. jël nañ ko jaay ko keneen ba kooku di opérer. Mhm. je pose le débat le dossier est resté en l'état mhm. donc ñoom bi ñu yëngalee dossier bi euh, ci weer bi ñu génn j'ai demandé à mon avocat mu casser euh, procédure 2018 boobu parce que elle est caduque entre temps fayaat naa xaalis entre temps y a eu cette histoire de fréquence radio là loolu la justice wax ne euh, ma est irrecevable addu ci leneen wàllum courant jàppaleen ne bu ñu sukkandikoo ci Amadou lii njiital Yeesal en marche daan nay fësal ne daal am na contrat bu mu siifee woon seen diggante ak Senelec waaye daal googu yëpp contrat daanaka jëmmaluñu ko ci anam ya mu waree. ca noonu nag la ñu daal di arto nag askanu Sénégal rawatina ñi yor nguur gi jamono ji ci euh, jëf yoo xam ne ka fi jiite woon Senelec daan na koy jëf te mu am gàllankoor ci boobule barab bu liggéeykaay ñu teewlu ay kàddoom. tey ñu waxtaan ci li nga xamante ne mooy jalgati yi nga xamante ne dafa am ci secteur énergie bi. li xew ci secteur énergie bi lu doy waar la suñu sukkandiku ci kii di Amadou Ly nga xam ne jàpp na ne ay scandale yu bëree fa am bi ci ëpp dayoo nag mooy signature contrat diggante Senelec ak West Africa Energy ci atum 2019 ci contrat bi nga xam ne dafa jalgati yoon. particulièrement sur cette question de production indépendante d'électricité loi cadre moom moo tënk organiser secteur de l'énergie moom moo ne obligatoirement da nga soxla dem def appel d'offre maanaam munoo tànn nit ci yaama neex mënoo xëy ne man bokk na ci violation yi mooy que ne société West Africa Energy bi amul woon kayit yi tax ñu war ko jox contrat boobee pour nga mën ko signer dañu la laaj nga indi benn document boo xamante ne nu ñu koy wax licence de production et de distribution d'électricité benn document boo xamante ne day wane ni yow am nga droit produire électricité di ko jaay ci réew mi ñii dañoo signé seen contrat ba pare le 11 juin 2020 toog ba 2021 septembre 2021 door a dem laajte ji autorisation boobu noonu pour ut loolu en droit ce contrat il est nul et non avenu. loolee waral kii di PDG Akilee SA di sàkku ci njiit yu bees yi ñu xoolaat mbir yi donte am na ci tiitaange bu baax ci ñi ñu tàbb. si Pape Toby tuumaaluñ ko ci dara mais dès dès simple fait que mu ngi nekkoon ci ñi doon discuter ak West Africa Energy xam ko waxuloo ko ba nga am nañu xam bi. mënoon nañoo taxaw booba ne eh yéen contrat bi ngeen di signé nii amuloon amoo leen droit signé ko parce que amuñu licence bi. scandale yooyu nag mu yokk ci surfacturation yi nga xam ne kii di journaliste bi kii di journaliste di Cheikh Yérim Seck bind na ko ci téere bi mu duppee Macky Sall derrière le masque ba tax Amadou li jàpp ne lii yëpp moo waral njëgu courant bi gën a cher ci biir réew mi te pour ñu wàññi ko faw rek ñu dakkal doxalin yu ni mel. jërëjëf Ousmane baa saa bu ñu jubee màggal ko Touba xalif général bi sëñ taxaa day génn addu ab waxtaan woo xam ne da ko jagleel jullit ñëpp. moom dafa sakku nag moom xalif général ba ci ñëpp ñoo xam ne jullit la rawatina murid yi ngir ñu sakko sakkoo sàlloo bokk euh, lii di njàngum alxuraan gi naka noonu euh, xasida yi ba noppi nag euh, sàkku na ci ñëpp ñu wutali Touba korok màggal gi. kon nag alhamdulilah niñ ko daan defee rek. kenn ku ne la nga mën ci lu baax. nga am ci pësteef. jëfandikoo ko. ngir santale ko. ngir loolu rek mooy li ci am solo. niñ daan jiitalee alxuraan ji. jàng ñetti kaamil. bu ko munut it te man benn it ba tey baax na. bu ko munut te man koo jàngalu it ba tey baax na. kenn ku ne lu mu mën ci lu baax. lu mu xam ci lu baax. na ko def. ngir santale ko boromam. boolewulul bi boolewul dara ak boromam. doxe na ma lépp rek jëm ci boromam. lu nu man sunu kem kattan. nu gën koo jublu. gën a jublu sunu borom. lu nu man sunu kem kattan. lu nu man sunu kem kattan. nu gën a dummóoyu adduna. nu gën a dummóoyu adduna. ndax noonu la ko bëggee. ndax noonu la ko bëggee. lu nu man sunu kem kàttan ci def ndigal. li. bàyyi bàyyi tere yi. nu di ko def. dem ci duwaanu Louga foofee muri ci itam daan nañuy tàmbali ndorteeru weeru safar gi ngir waajal bu baax màggalu Touba dañ doon amal nag bokk na ci yëkkati ay xasaayit ci jamono ji nga xam ne ñu bare bari ci taalibe woon nañ fa. mbeddu Louga yi nag ca noonu dafa daal di euh, soppi xar kanam ñu mën nemmeeku rek dëkkuwaay bu am solo boo xam ne dëgg nit ñi dëkk nañ ko nag noonu jàppalante gi ci am dañuy dem ca Louga fekki fa suñu ndaw di Gowa bës bi njëkk ci weeru safar ñu koy amal at mu jot fii si diwaanu Louga kuréel gi lëkkalee mbooleem daayira murit ak daara yi nekk si diwaanu Louga di dajaloo ci penc mi ngir màggal bés bi lee comme ni ko sëriñ bi diglee. lim ni woon la ko dalee ci gëléem ba ci ganaar lu ci waaye am nga def ko ci. moom nee na li ko boromam defal moom rek mënu koo sant sunu boroom nee na loolu moom lott na ci moo tax mu ni dafa bëggoon. képp koo xam ni mbégam sa mbéga njariñam sa njariña nga sant la ko sun borom ci bis boobu njariñ nag weesuwul lii. mu nekk nag loom solo rawatina bu nu sukkandikoo si njàngaleem sëriñ bii. li dëgg moom mooy ndaw ñi gën a xam gëstu si Ahmadou Bamba Xaadimu Rasuul gën a xam njàngaleem bu ko defee rek dana ci yoonu njub te yoonu njub mooy yoonu texe yoonu njub mooy tax nit ki xam dëgg-dëgg euh, dafa war a sàkk xam dafa war a liggéey te loolu lépp mi ngi dëxuñu si njàngam seen xadim. benn fanu safar nekk lu solo ngir waajal màggalu Tuubaa gi nga xam ne jàpp noonu ko ci àjjuma di daloog ñaar fukki fan ak ñatt ci weeru ut bile jërëjëf Gora Mbodj lu may loolu dañuy bu jëmalee ci wàllum tàggat yaram wax JO yi nga xam ne ñu ngi koy amal ci diwaanug Paris eh, Sénégal nag moom na mu ca duggee daal bëri na ay tolof tolof loolu ndax ki nga xam ne moo di Bokar Diop donte alarba gi nag la ci daal di tàmbali combat gu njëkk da ko ñàkk jàppaleen ne moom daanaka taekwondo ca lay euh, yëngu kii di Lev Kornev moom moo ko euh, daan di doomu euh, Russie ay atam toll ci fukk moom nag daanaka bi sax lay daanaka jàppal tànk ginnaaw ba ñu teree Russie ak Biélorussie bokk ci boobu lépp jongante li mooy loolu Kajoor Cissé dañuy àddu jëmale ci xibaaru bi ci réew yi ci tënk ba tey jàppaleen ne ginnaaw Mali mat ñaari fan Niger itam daan na koy feelu dakkal lépp lu mu xam ne rek seen diggante la ci wàllum diplomatie ak Ukraine. nag jamono ji jàppaleen ne que jiite euh, militaire la ginnaaw ba mu amalee euh, coup d'état euh, naka Mali defee noonu it la ñu ko defee waaye yemu ca ndax dafa dal di sàkku itam ci mbootaayi xeet yi ngir mu dal di yéeya bi indi ay leeral ci taxawaay bi nga xam ne Ukraine am na ko ci. song boobu ñu songoon armée malienne bi ba ñuy jàmmarloo ak ay euh, terroriste jaare fayr ëtt yéenekaay dale ak jaam yéen kaay yu bari kat dafa mel ni daal dañoo daal di bokkub xët ba tax na kat ñoom daal ñi nga tugg seen gémmiñ ba yuuxu wallu nekk maanaam ay entreprise de presse bu ñu deful nank rek daan toj ràpp ginnaaw sunu làmb ak stade daanaka ñu bëri jam dañoo lompoñ ba tax na kat enquête nee na daal presse bi nag ngi ci jafe dëgg dafa mel ni dañ koo daal di xocca daanaka sax taga témbe liggéeyam entreprise de yu bëri daal ñi ngi ci crise boo xam ne kat kenn xamu kañ lay jeex lépp rek jaare ko télédiffusion du Sénégal di TDS bi nga xam ne moom mi ngi leen laaj ay koppar yu takkoo takku ba tey yéen a kaay bi nee na ci ah, ñetti naan ba tey dafa mel ni kat waa TDS ñoom la mu bëgg rek mooy situation bi gën a bon ci nga xam kat mooy yéene kaay yii na kat bu ñu sukkandikoo ci enquête ne daal situation bi mooy gën a bon waaye tam waa CAP ñoom nee na kat li nga xam ne daal mooy seen jëwriñ ji moo war na ci yëy yàbbi les économies daal bu ñu deful nànk ay patronat presse ñoom war na ñoo mën a waxtaan daal ni ki ajjuma na jafe-jafe ñu mën ko saafara bu loolu kat ñu bëri xawoonte nooyi ba tax na kat jafe-jafe am na ci wàllum koppar koom gi moom daanaka sax ak lépp la fay ruusee dara amee su ci li nga xam mooy yéen yi ndax boo deful nànk rek ñu bëri daañu tëj Sud Quotidien yamu fa ba tey ne daal jafe-jafe yi métti ndax foo ko takk weesu na ko am joo kat dañoo bloqué seen compte bancaire am ñoo xam ne dañoo war a li nga xam kat mooy seen i bor waaye sax ñoo xam kat seen convention yi dañ koo dakk dakkal boo wala a liggéey moom dikkaat ci enquête bi nga xam ne moo ñeel wàllum dëkk ci entreprise première bet bi nga xam ne dañ koo jàpp daal ci jëf yuq ne daal dañ koo defeere ni keroog moom directeur général Joris Dënkël Diakhal dikkaat na ca daw gu doon daw génn réew mi ne daal soxnam ci boppam moo paniqué waaye itam lañ koy daal di toppee rek teg na lu tolloo fukki milliards ak ñaar suñu koppar yéen kaay di rax dañ ci Miria Big Malion moom nag ma ngay def kéemtalaay Sonko ba tey ne daal Ousmane Sonko bis bi la jour nee na sori hémicycle bi maanaam assemblée nationale la koy daal di firndeel mooy nee na bi nga xam ne moo am ci conseil constitutionnel jaarale ko ci njiitu réew mi Bassirou Diomaye ci avis bi nga xam ne daal wala date ba nga xam kat moom la sàkku ci waa conseil constitutionnel mën ko leeral ngir mu tas li nga xam ne assemblée nationale tax na kat wàllum déclaration politique générale sori na critique nee na nationale waaye itam fexe ba motion de censure mën koo moytu ba tey ah, ci wàllum koom l'observateur di kaat na ci métti boo xam ne daal entreprise Sénégal yi ñoom lompoñ nanu loof lanu daanaka sax seen dund dañ koo méngale dund ko were waaye ñu gis ay marché yoo xam ne kat dañ ko attribué ñeneen daal leen fii bàyyi mel ni yàq bu naqari ba tey solidarité moom amatul ci diggante ñaari cheikh yi maanaam kenn ki di Cheikh Dieng mi nga xam moo fi nekkoon ah, directeur général bu ANAS tekki nomba lan mooy sabab li nga xam ne moom la teg nomba tànkam bu Cheikh Dieng ba tax na ñetti weer ñu teg ko ci bopp ANAS daal di koy dindi l'info ne ko dëgg la ndax Guy Marius Sagna moom ci bopp Abdou Mbow ñoom ña ngay tongali ba tax na gouvernement bi di laaj lu tax rek yenn ci ay marché lu ci mel ni kat ay logement ñu daal di koy jox ay entrepreneur chinois bàyyi fi ñi nga xam ne Sénégal yi le sol yéen kaay di ko jeexal ak moom brigade sécurité alimentaire la ñu daal teg ngir mën a contrôler activités yi nga xam ne moo tukkee ci li nga xam ne kat moo gi lépp mën a renforcer nga xam ne mooy càccuma jur gi lépp mën a jeex jeex ci même réew jaa gërëm ñeel na ko Momar Cissé mbokki jaare fi buur jotaayu xibaar yi jaajëfal leen baax ci taalu bi ànd beeg 7TV amoon mbégte jàkkaarloo ci ak jox si. mbégte la bu ñu partagé Suzanne ñu ngi jaajëfal bu baax a baax mbokki ñu doon teewlu. xibaar yi dina del si juróom waxtu la doon ci tënk ca kàllaama nasaraan ak wolof ngeen ci ànd ak Jibril Diallo jaa ngeen jëf.